dina bëri lool fitna campagne boobee naka tàmbali naa bëri deret ndax Sonko naka otti na ay abim le premier ministre dal dee def jàpp na ni naka Ousmane Sonko la mu xamle naka ne Barthélémy Dias waratu def campagne ci réew mi wax na nag ay ndawam ñu taxaw naka fi mu toll nii ku leen xuri naka ñu dal dee fayeeku waaye Barthélémy médias tontu na nee mbir mi moom dañuy sonn rek waaye kenn mënu koo tere def campagne cortège bu coalition sàmm sa kàddu nag ci boobee jamono ca Thiès la ne ci ñu nag ñi amul leen loo xamante ne yoon dal na koy maye ñu attaqué ay caravane caravane yi kay si jamono ji foofu wii rek violence bi mu ngi ni coobay Walf Quotidien taxaw nag Ousmane Sonko ak Barthélémy Dias le face à face yéene bi ne fintooni Dakar bataille capitale dernier virage boo xamante

préparé leen ku leen xuri ngeen kobas ko yéeni kaay bi ne enquête nee na naka fintoon yi Sonko suliwaat na bu baax a baax li nga xamante ni si moo di gàtta gàtta bi ndax jàpp na ne naka la ñu dëkkee di leen attaqué loolee moom mën a tuta ne li nekk libération yéeni kaay moo naka gars yi naj leen teg leen loxo bu ne leen cuux si kaso gi ab information judiciaire daanu ko dal di ubbi ci wàllum naka njuuj njaaj ci dañee public faux ak usage de faux blanchiment ñu teg loxo ci leneen moom nag arrêté faatoom góogee pënd ba léegi wuréegul ndax ki nga xamante ni moo di soxnaam digtal na koy wóolu ba noppi di ko déglu ndax jàpp ne mbir mi moom dañ ko war a leeral leeral boo xamante ni du am benn lëndëm lëndëm ndax faatoom boobee jàpp nañ ne am na lu ci laxasu waaye nag yéen i kaay nag ne fi mu toll na ko de Sonko menacé na Jean Baptiste Tine défié na Diomaye

loolee moom mooy réew mi na sax na gasax na dëgg cay réew mi xam naa ne bu ñu wàññoon wax ji te boole ko jëf de mooy ëpp solo waaye wax rek ak politique te jëmew réew mi fenn mbir maa ngoog ñoo ko déggandoo jàngeen jëf ba ëllëg